Thiès barab la boo xam ni nitu Thiès ñi bu téeméer juróom fukk yëpp dañuy wor nit nitu moo dansera lu mu la wax dëgg boo xam ni nitu Thiès ñi bu dee téeméer juróom-ñett fukk yëpp dañuy wor nit nitu moo dansera lu mu la wax dëgg Thiès barab la boo xam ni nitu Thiès ñi bu téeméer juróom-ñett fukk dañuy wor nit nitu Thiès moo dansera lu dëgg Thiès barab la boo xam ni nitu Thiès ñi bu ñu dee téeméer juróom-ñett fukk yëpp dañuy wor nit nitu Thiès moo dansé rek lu mu la wax dëgg